اليوم أبدا بذكري وأن يكوفنا روى النار والسماء نبس لقى لله عبدا مرتلا لذكر حكيم عن جناب الهدى سربا أرتل ما دمت حيا وأكتفي ثم الحمد والآل قد سبا خرجت بفضل الله من كل باطل وفارق تدبيري به دفع والجلبا رديت به ربا كريما مكرما وقاني الهدى والحرب والبار والتلبى جزائي على المولى بلا sëñ Modou Cheikhouna bokk yëpp gis nga ko ñoom ñëpp ñëw ànd ak sëriñ Matar ci waajtaayu bis bi suba ak jàmm nag ñu war a recevoir ngir bisu alxuraan bu mag boobu nga xam ne sëriñ sëriñ Tuubaa nee na alxuraan u wasifa min kulli daali man alayhi tamada wa man abahu turida sa hasratin wa nasami wa nadami waaye wa kullu saxsin alhada waaw waaw moom daal li sëñ bi bëgg ci dëkkam bi nee li bi bëgg ci dëkkam bi sëñ Tuubaa Matlabul Fawzeyni dafa ñaan boromam ni ko bayit waa ngi ne wajaalahu dëban maskana taallumi wa mawdia al fikrati wa tafahumi yow yàlla maa ngi lay ñaan sama dëkk bii nga def ko muy bërëbu sàkkaay xam-xam bu bu sakkoo sàkkoo xam-xam ba pare it maa ngi lay ñaan nga def sama dëkk bii wala tusbitan fiihi jamaatan tuqim asalawaati alxamsa dëban yaa xakim nga def ko muy bërëb boo xam ni dañ fi taxawul julli juróom julli juróom na ko tudd ko ndax tabax jumaa am na lu ko jiitu mooy jàngale ndax yonent sa sa alayhi wasallam dane al madaarisu xabla al masajid na jàkk na jàngukaay yi jiitu bërëbu jullikaay yi bërëbu jaamukaay yàlla yi yonent bi dellu wax ci yonent suñu borom wax ci hadisul xudsi yi aarifuni xabla an taabuduni fa in lam taarifuni fa kayfa an taabuduni na ngeen ma xam njëkk ngeen may jaamu moom nag mu ñëw tabax ay école pour gone yi jàng xam seen diine bu ndax sëñ Tuubaa dafa wax ni yaa ayyuha sibiyaanu laa tastaxilu an il huda o bil ulumi istaxilu fastaxilu bil hifsi wa tilaawa wajtanibu majalisa saxa wala sima man laa yasaalu aabida li rabbi ilaa huda wa xaayida muy xale yi ñu tuuti ñii doog a juddu am sept ans war a dugg jardin ñooñ la sëñ bi waxal mu jóg ñëw ci waxambaane yi nga xam ni ñoo toll ci dix douze ans treize ans jëm dix huit ans mu ni yaa ay subbaanu in xiftum xajal fa xaddimu taalluman ala amal yéen waxambaane yi bu ngeen ragalee lépp lu ngeen di jëf ëllëg mu ànd gàcce na ngeen am xam-xam mu andil sëriñ bi loolu ci dëkk bi kon nag moom dañ koy sant dañ koy gërëm alxuraan nag mooy li nga xam ne ci la sëriñ bi rawe ñëpp naajaaniyal munzilu bil quraani xatta xadawtu mawrida samaani yow sama boroom defal nga ma ci alxuraan maanaam defal nga ma ci alxuraan ba mu mujj doon naanukaayu képp ku mar ci alxuraan ma nekk naanukaay képp ku mar ci alxuraan loolu nag bu ko sëñ bi defee ci dëkkam bi dëkk bi di tuubaa bokk ci bërëb yi nga xam ne fi mokkal alxuraan mokkalewul fenn moom mu ñëw opté ni jàng bu jàngee ba pare mu wutal leen fu ñuy jaamoo yàlla te sëriñ bi ñaan ko ci Matlabul Fawzayni kon moom dañ koy sant te alxuraan mooy ñooñu yàlla ahlul quran mooy ahlullah ahlullah mooy ñan mooy ñi nga xamante ne si ni yàlla da leen a doon loo alquran suma awrasna alkitaba allazi nastafayna min abadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil xayrat bi idnillahi zalika wal fadl kam ñooñu ñooy ñooñu yàlla ñooñu yàlla mooy ñooñu alquran te xayrukum man ta taallama alquran wa allamahu ki gën ci yéen mooy ki jàng alquran ba pare di ko jàngale ibnul xayim dafa wax ni man ahabba an laa yanqati amaluhu baada mawtihi fal yanzur il ilma képp koo xam ni bëgg nga sa gannaaw boo fi jógee ba faatu ba nekk ci biir bàmmeel sa wiw du dakk ba ba saa di taxaw na nga tasaare xam-xam mooy dëppook xaddis bi yonente bi wax ni isa maata al insaanu inqata amaluhu ila min salaasin sadaqatin jaariya aw ilmin yuntafau bihi aw waladin saalihin yad'u lahu kon moom fa tabaarakallaa mi ngi ci loolu te ku bokk ndaam nag sa waajur bokk ndaam sa waajuru jigéen bokk ndaam sa waajuru góor bokk kër Cheikh Issa Diène lii mooy sa devoir mooy xam-xam ndax keroog ba sëriñ Touba waxee ca Mbàkke Kajoor waxam juree joojee ni képp koo xam ni jàng moo la fi indi woon saafahani rasulullahi bi xawlihi bi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi si faqat am nañu dem mais am na ñu fa des ña fa desoon sa maam ci la bokk keroog ba sëñ Baara gane adduna sa maam Cheikh Issa bokk ñi ñi Serigne Touba wax ni ad day fu haza xad ataakum bi kaafati mataalibikum gan gii fi ñëw indi na li ngeen doon sàkku Cheikh Mahamad Lamine bokk ci ñi nga xam ne it wax na ni awras nañ la Qur'aan antal waarisu hifsan wa fahman fawqa kulli haadisi yàlla mi nga xam ne moom moom alxuraan moo ma ko doon loo te yàlla wax ci alxuraan wa maa yaalamu taawiluhu illa allah wa raasixuuna fil ilmi kon yow bu la yàlla mm-hmm. la ci jàng ak jàngale ñu say di say soppe dañ lay tiitaroo di la bëggee di kontaan ci yow lii rek la bu ñëpp defee nii réer day dañ ci askan wi réer day dañ ci réew mi te jàng ilmun bila adabin ka sajaratin bila samarin xam-xam lu mu kawe kawe bu ànd ak teggin amul njariñ teew xale yaa ngi leen di yar maa ngi gis image yi muy daw ni nga leen di tàggate ci ñu bëgg seen réew ni ngeen di tàggate ci ñu war maa kilifa yooyu nag bu amee rek li ci des dootul am solo ndax xam-xam moom lu mu bari bari bu bu amut ak teggin amul solo sëñ Tuubaa bi muy taalif naaju la taxoon mu taalif dañ ko sàkk woon ci moom ngir mu taalifa leen téere boo xam ci la ñuy jàng seen teggin mu taalifa leen naxu mu taalifa leen jul naxjul xadal xaaji fii xas ci say xinat dal xaaji kon nag jenn jërëjëf ma ñëw fekk fi samay mbokk sëriñ Moodu di sunu rakk di sunu xarit doomu sëñ Seexuna mu soxna moomi ak sëñ Moodu aw Balla di rakk di xarit mbokk fekk sëñ Morlo mii nga xam ne moom moom lu baax fu mu nekk lu baax fu mu nekk boo demee da ko fekk moom na ma koy wax ne ko yow amoo frontière ci biir kër Serigne Touba nit nag da ngay fexe ba doo am frontière ci dara am liberté ci sa bopp bul nangu kenn ku la tënk ndax tënk gi ay yëfi tappaleel yëfi caaxaan la sëñ Touba moom am yoon wi te yoon wi Serigne Touba tënk ko ci dara ni ngay doxee lu nit nekk nga ñëw ànd koog moom taxaw ko jàppale ko man fépp laa lay gis te loolu mooy affaire bi bokkoo ci kilifa yi nga xam ni da leen di woo ñu koy main libre ci kanamu nit ñi di la ruube di la yàq di la main libre ci ay waxi tappaleek waxi caaxaan te adduna bii ñu nekk nag gis nga ku ci wattandikul sa bopp boo dañee teg Sëriñ Tuubaa da nga am gàcc kon nag loolu na nga góorgóor ci lool ma ànd ak Sëriñ Souhaïbou di sama doom ak Serigne Mbacke ñuy samay doom di samay xarit ak Serigne Mbacke Sylla mi nga xam ni moom day xarit di téyeer di taalibe Daaru Xudóos di jàmbaar di ko yàlla baaxal ak Mourtala mi ma fekk sama njaboot fekk fi Cheikh euh, sëñ Cheikh Mbacke Jami xam dama ko wax naan sax yow microbe nga waaye doo microbe bu garaaw ndax doo microbe buy wàll daal waaw Lamine nag moom microbe buy wàll la waaye yow doo microbe buy wàll macha allah jërëjëf ja sama xol sedd kontaan na sëñ Matar yal na yàlla defal jàmm yal na yàlla taxaw suñu xol sedd na Mourtala Tawfekh TV macha allah gis nañ bu baax yow it ni nga bëggee lu baax yow li ma wax ci Mor rek moo la valable yoon yi da ngay fexe ba bu la kenn tënk ci dara bu la sëñ Bass Khadim bu tënk bu la sëñ Matar ngeen tënk bu la sëñ moo tënk bu la kenn tënk yéen matériel bu sëriñ Touba ngeen te Mor mi yow sëriñ Touba bu am loon doo am ndax fa nga bokk tax kon nag nii ngay doxee man naw laa na ci respect loolu moo valable ci Mourtala mi Mourtala fépp lay dem lépp lu baax dana ko génne dana ko tasaare dana ko yaatal te kenn gisagu ko muy tasaare nag lu jëm ci ay soirée gi fi caaxaan mm-hmm. lu muy tasaare arxuraan donc lay doon mm-hmm. te sëñ Tuubaa nag mooy arxuraan mm-hmm. mooy lépp kon sëñ Matar sun xol sedd na lii jëf ju rëy la lii moom dafa bokk ci jëf yi nga xam ni sëñ bi da koy tiitaroo da koy puukaree woon ndax fii ku fi ñëw dana xam ne yow bëgg ngaa jàppale sëriñ bi ci li mu bëgg ci dëkkam bi mooy xam-xam ak jàngale ko ak yar dongo yi ak teg leen ci yoon ak def ñoom arxuraan ndax sëñ bi alxuraan mooy léppam alxuraan bu ëllëgee yomal xiyaam ñi nga xamante ne si ni ñoom mokkal alxuraan ak ñi nga xam ne ñoom mokkal alxuraan ñooñu yàlla fam leen di teg ak nam leen di warmaale ak cër yam leen di jox ak nam leen terale bokk da koo mokkal kon nag boo optee nekk ci loolu dañ lay sant dañ lay gërëm dina ñaan yàlla mu jàppale la loo nekk ñun ña ci ndax suñ xarit nga suñ soppe nga yàlla boole ñu ñu yàgg ànd nga bëgg ñu fonk ñu jàpp ñu te jëm sëñ Tuubaa rek tax lu ñu xewle kenn du la ci jiit kenn du la ca man fa tabaraka la yal na yàlla defal jàmm. man kay waxuma sax ci tuuru sëñ bi maanaam waxuma sax ci tuuru sëñ Matar damay wax ñaari kaddu ci sëñ bi rek di ko siyaar bu baax a baax xanaa suñ xol a sedd ñun ñëpp ci teewaayam ci barab bi ndax fi sëñ Matar nekk moom la fi nekkal ndax moom it ab liggéeyam lii rek la muy alxuraanul karim ñun ñëpp xam nañ lim ciy daj suba ba ngoon jot ak ni muy sonne ci daara yi ak ni mu leen di taxawoo ngir lu gën a ñoŋal seenu nekkin kon xëy na li ci des moom mbirum Sëñ mataar la waaye suñ xol dafa sedd yàlla xam na ne ba mënuñ koo ñàkk sant ndax yëg nañ loo xam ne daal moom lu lu lu rëy la ci ñun kon nag Mbàkke mënuñu lu dul dina ñaanal sunu borom taxawu la sàmm la niñ la koy ñaanale jamono ju rek jamono ju nekk boo ñu gisee ak boo ñu gisut lépp loolu lañ lay ñaanal loo nekk rek fuñ la gis rek sunum xel day dal nit ku baax nga nit ku mat kilifa nga ku mën a sagal doomu aadama nga ku mën a taxawu si nga ku mën ku mën a sonn ci si nit nga ku mën a sonn ci lu baax nga boo sañoon ñëpp da ngay am ñëpp danañ am jàmm boo sañoon lu waay nekk Mbàkke lu mu mën a doon lépp yaa ko koy defal mm-hmm. ca loolu waxoo ko waaye da koo jëf kon nag yal na la yàlla taxawu ci sàmm la man dama koy ñaanal rek ah. waaye du du ma nekk sax di wax ci digganteem ak sëñ Matar mm-hmm. waaye dama koy ñaanal rek ndax li ma yëg ba koy ñaanal it man xam naa ko bu baax a baax yal na la a taxawu Mbàkke ci barke borom Tuubaa incha allah jërëjëf sëñ sëñ Moussa Bousso jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax di gërëm bu baax di la wax ni yow moom macha allah maanaam fu ñuy fu ñuy defal taal alxuraan moom gestoo gis la fa ci jataay yëpp nag te loolu moom suñ boroom defal na la ko defal na la it ndimbal ci alxuraan ci xam-xam ndax am na ni ñu bari sax bu ñu deful takraar rek daal di fàtte waaye yàlla bu la jaglee la nga jaar ci kokki ak coono ya <laughs> ba dese ci yoo xam ne léegi daanaka moom ku ne ci yow bu yëkkatee baay dina xaw a xaw a xaw a jaaxle loolu mbaax ak ak ndimbalu suñu borom la sa jëf nag di dem fu ne ci alxuraan ndax jataay yi bari nañ lool waaye fu ñuy defalee alxuraan moom kenn du la fi jiitu te fi wane na ko ndax wax dëgg yàlla boobu ba léegi ñu fi ñëw bari nañ ci ay tiraanga waaye nag lu bokk ci sëñ Touba yaa yaa ci jiitu kon bu ñuy defal sëñ Touba alxuraan nga ñëw jiitu ca loolu ndimbalal yàlla la ndax wax dëgg yàlla macha allah ñu ngi koy seqal bari na lool te kon lii rëy na ci ñun ñu am diggante bu xóot nag boo xam ne kenn du ci wax nit ñi wax ni moom gisee bu gisee sax mën nay bari. waaye nit ñi am nañ ñoo xam ne seen seen yëg-yëg ci seen biiri xol ak lu ñuy jàpp loolu dafa gën a rëy te te loolu day démb am yoo xam ne démb la du tey te day xóot lool maa ñu fàttalikul bis bi nañ ko ci sa bis bi te dee ko fàtte mooy jamono ji nga xam ne sëñ Mourtada radiyallahu ci la mujjee Italie atum ñu war a dem ci Cremona génne ci hôtel bi ci mu njëkk nuyoo léeg sëriñ Cheikh Bara Mati lay waaw waaw kay na ko yàlla yërëm te yokk ay leeram te ci hôtel bi ñu nekkoon bi ñu fa génnee ci seede loolu nga doon seede ba nëgë ni danga ko wax ni ko nuyul kii sama xarit la waaye ku fonk kur la ku fonk naafi la ku fonk jaamu yàlla loolu yàgg na boo xoolee ak léegi at yu yàgg la ndax day ñam ay 2000 at rek 2003 2000 nangam xaw naa yàgg fa ngeen ko doon seede te foofa woon na lool nga dox ba dox waree dox maanaam it sonn ba sonn waree sonn jaayante ci xam-xam it ba mu waree nit ñi dañuy wax ni am na ci ñoñ ñoo xam ni mën nañ li am maanaam mën nga ko gis ci tey waaye amewuñ ko ci maanaam lu dul coono wala jaar ko fañ ko war a jaar moo ñu jaarale fi ñu jaarale ñëpp te kuñ jaarale kokki wax dëgg yàlla ci daara ja ak na mel ak ñoom ñu seet ña koy seede foo daje ñoom lañ fay wax ci say jëf ci ñoom doy na sëkk ba tukki jotee nga tukki bi bi bi waree toog ci dëkk ci dëkk réew mi kenn mënula ci ci woote ci lu baax kon maanaam man nga ni fu fu nit di jaar ci jaaruwaay ci wut lu baax yow jaar nga fa wax dëgg ñu lay sant bu baax tiraa yi jiitu na laata ngay ñëw ñu ngi la ciy sant andi nga fi tiraa nga yoo xam ne mën naa defar bis bi loolu macha allah te loolu alxuraan a tax rek ndax xam yéen fu ñu nekkit yéen lañ fa nekkal dañuy nekk fii ngeen nekk fii ñun nag lii liñ ci jublu rek bis bu set dañ koy wax mooy sant rek sant sëñ Tuubaa ndax kenn ku ne am na lum la defal loo war a yëg sa bopp ak loo xam ne yow yëg nga ni bu woon ak mooma mm-hmm. mënoo ko am daal loo rafet ñu jox la mbubb mu rafet ñu jox la loo bëgg ñu defal la ko te waroon a nekk ci coono boo xam ne bala nga caa jot mu jafe ki la defal loolu moom boo ne dara war koo tal loolu nag lañ koy tale moo di cant barab bii macha allah gis nga ni mu mel nii fi nu nii trois mille maanaam deux mille mètres carrés la kon des na ci ginnaaw yeneen trois mille mètres carrés boo xoolee barab bi nekk cinq mille mètres carrés lii lañ fi naal gis nga ko macha allah ni nga ko waxee boo xoolee classe yi nga xam ne moom ngay jàkkaarlool ñi nekk fee ñi nekk fii ci suuf am na juróom-ñaar fukk ñoo xam ne fukk ñeeg juróom-ñett bind nañu ay kaamil ñi nekk ci classe bi boo xoolee suuf nii ñoo xam ne ñoom ñoom ñooy doog a dal ñële na leen nga gis ñu def maanaam sey majalis ba leen nga gis ca kaw ñoom ñoo doon def entrée sixième ren ñoo ñu ne ci kaw dan la ñuy def entrée sixième def nañ ko ba noppi nga xam ne ña fa nekk ñëpp mokkal nañu alxuraan soo xoolee ci roq biir ñi fi ne ñoom it mokkal nañu alxuraan déwén lañu war a dem kon loolu mooy barab bi ci suuf gi ñu fi nekk bu ñu xoolee ci effectif bi ñu fi indi boo xoolee li fi war a mën a nekk nii nii nii nii xam buñ buñ buñ buñ bu ñu yàlla bañ gën a dox lu mu néew néew néew mën na jël mën nañu jël ba 2000 ba 1500 ci ñoo xam ne mën nañ fee nekk am na yeneen mébét yoo xam ne am nañ ko ci ci ci ginnaaw waaw liñ ci li ñuy def nag nga ñaanal ñu ci rek mooy li ma wax noonu wutuñu ci barab mën nga ko mën ngay samp dara di wut luy dellu ci sa poos waaye lii moom liggéeyal Sëñ Tuubaa la ci dara maa wutuñu ci loo xam ne dafa war fii di ñëwaat ci ñun loolu ñu la koy seedeel kon damay wax ñi fi ñi fi ne ci daara ji école bi yëpp ñu leen nañ def li ñuy wax ixlaas mm, sellal fexe ba am ndam yu rëy ndax bu ñu amul lore dañuy perte parce que bu fekkoon dañ ci wut xaalis bu ñu ci amee xaalis mën naa neex mm-hmm. waaye ñun sellal rek lañ ci wut kon moo tax nag macha allah ñu ngi lay seedeel ni daal ke sa taxawaay ko sant sëñ Tuubaa lañ mm-hmm. ku ko sant waaw ñu ngi lay seedeel sa taxawaay ni ko ku ko fas yéenee liggéeyal lañ ko ko mm-hmm. bëgg liggéeyal lañ waaye ñu ngi seedeel ni amuñu wéttal du suba du ngoon du lu ñuy yëg du ko ñuy bàyyi suñu xel du ko ñu jàpp du ko fees ci ñun ku dul sëñ Tuubaa mm. ci ci lañ fas yéene xëy bu ñuy nelaw bu ñuy yeew bu ñuy dox bu ñuy lekk di daj suñu dund ndax lim ñu defal jomb na mm. yëg nañu ñu defal jomb nañu waaw yëg nañ ko ndax fi fi ñu jaar mm. am na loo ci xam ah, am na loxo yoo xam ne ku ca tudd ku ca dugg mucc sëñ Tuubaa tax waaw ndax lu ne mën na caa mën na la caa fekk mm-hmm. waaye boo ci duggee mucc rek sëñ bee tax sëñ boobu nag la tax a mucc mm-hmm. waxtu ne da ko war a yëg di ko dundal kon ñu ngi lay sant Mbàkke ci sa jataay yow macha allah may nga ñu sa jëmm lu xóot ndax li may wax rek nit ñi maanaam li ñu gis ci kaw ak li ñuy yëg waaye bokk am na nit ñoo xam ni soo leen wooyee ñaan leen léeg nga jàpp ci ay jamono ci sa mbaax maanaam buñ la buñ la ñaanee ca saase rek nga daal di teg loola ca suuf te loolu may la wax nañ la ko ba tayit ñëw nga sunu kër miraaran ay yooni yoon waaw fekk nga fa sunu waajur wa ñu bokk jox koy tiraanga ay yooni yoon te loolu lu soor la ci ñun waaw dugg nga sunu néeg fekk fu nu mos a ne fekk nga nu fa nañ ci ci ci yu baree bari mbàkke waaw nga yëg ko daal nga nga yëg ko li lay ñaanal mooy jàmm lañ lay ñaanal mooy mucc li lay ñaanal mooy nga liggéey Sëñ tubaab bi nga xam ni maanaam acteur nga ci xam nga acteur mooy koo xam ni mm-hmm. maanaam ñii dañuy taxaw di tabax mm-hmm. am ñoo xam ne dañuy taxaw di soññi mm-hmm. am ñoo xam ne dañuy taxaw ku leen seen seen xel dal waaw mooy baas yi ngay dem fu ñu la fekk bërki dem ba ca jumaa ja mooy ca euh, Moussa Mbuub def liggéey bu am solo boob ñoom sëriñ boobu nga taxaw fa ca biir jumaa ja bañ la la waxee bañ la joxee ngay wax suñ xol sedd xam nga li ñuy wax àdduna jamono ji la comme mi kuréel wax dafay dem fu ne waaw te fa kasratul ilmi bi xayril adab ji ngay wax laal yëpp feeñ na ci say wax waaw wala muy laa laa bi kasrati riwaaya nuurun maa diraaya loolu yëpp feeñ na ci ci ci ci ci say ci say wax feeñ na ci yu bëree bëri te loolu jàng ba nga waree jàng macha allah ndax lu ko lu ko deful it da nga ci am ak réccu waaw te doyul kilifa ñu jox la responsabilité nag nga war a taxaw ci mbooloo waaw fu la neex xuus lu la neex wax loolu kon ñu ngi la ciy sant le ña taxaw ba nga mel loolu waaw ñu ngi la ciy taxaw ñu ngi la ciy sant sab soññee daal baax na sax ñëw fi baax na waaw sa soññee baax na yow moom bu ñu la gisee suñu suñu xel waaw lii moom ay ay ay bureau la waaw lii mooy ay bureau la waaw waaw tijjee ñi cinq cent personnes lañ fi amagul biñu tijjee li li ren li bindu nii nga xam ne bu am nañ mille yu taxaw lépp li ñaa ngi ko gis yee tax dara nëbbatootul waaw <laughs> yow moom lu baax li nga def bëggoo kenn koo xam waaye nag li nga waaye nag lu baax ba ko nit def dafa war a yaatu pour ñi nga xam ni bëgg nañ te amuñu fit wi ak ñi nga xam bëgg nañ am nañ ko te amuñu xol bi te am ñi nga xam bëgg nañ te xamuñu fu ñuy jaar macha allah waaw tubaarkàlla waaw lépp a ngi fi sëñ bi daal moom a baax. Ah, sant na ko a baax. asalaam ñëw nga. yaa ngi ñëw dañuy damay xaar gaynde baara ba mu agsi ndax moom it lu baax da koo ñor ca yow lu baax lii la ñor àdduna bépp ko seere say bokki bopp rek ko seere sëñ Maxtaar mi taraange yi mu wax nii yaa nu ko jox léegi ñu indil ko ci moom lenn lu ne bi ma ko woowee téléphone leeral ko nombre bu ne lenn lu ne la doon ma leeral ko dani ma ca moom de xanaa loolu alxuraan rek ko jaral waaw ca yéen njabootu Cheikh Modou Lamine Bara rawatina njabootu Serigne Khadim Awa Ba ku tudd seen bëgg gépp leen koo jooyal ci alxuraan xam ngeen ni moom rek la fi ne seen maam bàyyi kon mbàkke ay cant ak i ngërëm yu baree bëri jóge na ci sëñ Matar mi ñëw ci yow ndax yu jiitu yu baree bëri yi feeñ ak yi nëbbu mm. sa digganteeg moom àdduna bépp seer nañ ko ñëpp ko xam képp ko jege xam na ni yow xaritam nga ca lu baax rek ngay xeeñ moo tax li sëñ Moor mi wax xooloo ma sedd waaye faw ñëpp sant la ñëpp gërëm la ndax yoon yi amoo ci fenn sens interdit umma islamique bépp la ñuy wax sax fépp fu man mën doon rawatina yoonu murid say bokk ñëpp la sant say xarit ñëpp la sant yàlla na yàlla defal la jàmm yàlla yàlla sàmm la yàlla yàlla aar la nit ku baax nga képp ku xewlee ci ñun ñii kenn ku ne bu bëtee bu xonqee bu geesoo gis la kon nag ñu ngi ñaan Mbàkke yàlla yàlla guddal soo fan bégg sëñ Maxtaar bégg na xolam sedd na jërëjëf Mbàkke jëf yu mel nii li tax ñu war di ko yaatal mooy jamono bi nit ñi jàpp nañ ni ñi koy jëf mooy ñi yàlla dénk teraangay àdduna képp mais am na ñoo xam ne am nañ pas-pas bu toll noonu benn misaal la ci moom nii ndax lii tey bu ko neexoon mën na ko def ay immeuble Ndakaaru muy génne xaalis waaye bu ñëwee def ko fii dafay xam nga dafa am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne salaasa salaasa tijaaraatin laysa maaha xasaara dana ñi am na ñetti commerce yoo xam ni amul pertement te ñett yu yëpp gis naa ko fi ñu ne ko mooy bana ban muy mooy tabax juma iqaami salaat bi ci des mooy xiraatul quran jàng al bi ci des mooy al fi sabilillahi mu ne ñett yi ku ci nekk amul pertement ci yow yàlla dëggal ñu ko ci al quran ci suuratul fatir ni inna allazina yatluuna kitaaballahi wa aqaamu salaata wa anfaqu mimma razaqnaahum sirran wa alaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabuura alxuraan indiwaat ñett yooyu yëpp julli jàng alxuraan def ci yoonu yàlla kon jëf ju mel noonu bu ko nit ki xalaatee kooku mi ngi xalaat ëllëgam ndax tëraay bu yàgg boobu yi nga xam ni tëraay bu yàgg la ndax boo xoolee ñi njëkkoon a faatu boobaak léegi-léegi mat ñaari junni at wala Seydina Adama ngay wax te Adama ak léegi daanaka léegi mu jege di mille ans boobaak léegi yàlla amut soxla ci ñi tëdd te du laal seeni dossier du ko régler te ñëpp faatuwuñ ba jeex tàkk te loolu bu ñu jàpp ni àdduna jeex na àdduna li ci des bari na lool kon nag dafa am jëf yoo xam ne képp koy def yaa ngi xalaat tëraay bu yàgg boobu te tëraay boobu ku fa xis ba tëdd lépp loo xam ne jëfowoon lu mel nii lii ci sadaxa jaariya la bokk lii dafa bokk ci sadaxa jaariya bu ñuy wax ni dafa am juróom-ñaar yoo xam yonent bi salaam salaam dafa wax ni dañuy saboon yajri bada mawtil insaani fi xabrihi nee na juróom-ñaar a ngi ni yoo xam ni du dog gannaaw bi nit ki faatoo ba nekk ci biir bàmmeelam ñu ne ko ban ak ban mooy euh, bënn teen fekk ñu amul ndox nga bënnal leen ndox bi ci des mooy xëccal nit ndox branchement ndox ci ku ko amul bi ci des mooy tabaxal ni douze toilettes bi ci des mooy jëmbat garab bi ci des mooy bàyyi fi doom ju baax joo xamante ni si ne dalay ñaanal yàlla te doom boo ko jàngalul yaroo ko mënoo laa ñaanal yàlla ndax xamul fu muy jaar yawma yafiru maru min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi li kulli mri minhum yawma yasid sa bu ko yàlla waxee ci alxuraan lu wér la yoomal xiyaam doom day daw bàyyi bàyyi di daw doom bàyyi di daw bàyyi te loolu dara waral ko lu dul jur say doom yaroo leen jàngaloo leen tegaloo leen siraatal mustaqiim bu ëllëgee dañ lay daw ndax responsabilité boobu dox sa diggante ak ñoom doo leen bëgg a gis ndax yàlla dalaa gàcc ni la yow kat kullukum ra'aan wa kullukum mas'ulun an ra'iyati yawmal qiyaam ñi la yàlla jox ñu nekk ci sa suuf nga war leen a jàngal war leen a yar war leen a gindi war leen a teg ci siraatal mustaqiim boo ko deful bu ëllëgee doo leen bëgg gis ñoom duñ la bëgg gis mu ne beneen ba ca tegu mooy nga donduloo nit fexe nit ba mu mokkal alxuraan wala nga jàngal nit xam-xam mooy juróom-ñaar yooyu te yooyu yëpp sëñ Matar mi fa tabarakalaaw mi ngi ci te yooyu dafa am solo ndax ci sadaxa jaariya la bokk tabax juma sadaxa jaariya la tabax école sadaxa jaariya la bënn teen sadaxa jaariya la mokkaloo nit alxuraan sadaxa jaariya jàngal nit mu am xam-xam sadaxa jaariya la yooyu yëpp jëf la yoo xam si ni bu ko nit ki xisee ba tàmbali ci àdduna du ko def bu faatoon ba mu mat junni atit jëf joojo yool boobu da ko fay fekk fa mu tëdd te foofa dara du fa jeex bu sëñ Tuubaa wax naan wa argabul asyaai lil amwaati raddun ila dunia mal xayaati walaw sowaatan faqat li yamalu saalihatan tan fam in xafalu nit ki bu génnee àdduna ba nekk foofa la muy soxlawaat dellu siwaat ci àddina jëf fi benn jëf bu baax ndax foofa dara du fa doy donte benn seconde la mu ñëw yëkkati biteelu ndox jox sëñ Moodu mi mu naan mu yéene ko sarax wala mu yëkkati ko jox ko abdusalaam mais mu naan ko mu yéene ko sarax loolu rek rek rek rek da koy bëgg defaat ndax xam na ni foofu dara du fa doy mm-hmm. bu fekkee nag yàlla dogaloon nga tabaxoon ay jumaa tabax ay daara di gët bënii teen di gasal nit ñi ay duus te yàlla rek tax nga di leen dimbali jëf joojo du doy du jeex mukk ci àddina kon sëñ Matar lii mu nekk nii ñun mooy li képp ku bokk seen Tuubaa ci nga war a nekk kon sëñ Matar jërëjëf yal na yàlla yal na yàlla sàmm yàlla gën laa taxaw man daal vraiment man je suis impressionné bi ma duggee fii wax dëgg yàlla sama xol seet na te kuy sa soppe bu fi duggee xolam dana sedd ndax lii rek mooy jëf yi fasabixul xayraat yi njëkkante leen lu baax wa anfiqu mimma rasaxnaakum min qabli an yaati ahadakum lmawtu fa yaqula rabbi lawla axartani ila ajalin qaribin fa asadaqa mooy lii wa akun min asaalihina mooy lii kon yàlla na yàlla defal jàmm suñu xol sedd na jërëjëf wa tabaarakallah jërëjëf Cheikh Mamadou Bassirou ñëpp kontaan nañu